asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu fii ci Paradise TV ñu fas yéene ànd ak ak xibaar yu ñu jot a am si ngoon si si uh, boppi xibaar yi niki altine dina yokka paas ka Pawasip ñoom nag may nañ uh, ay ndogu pour ñi nga xam ne ñoo jullit yi nekk fii ci biir réew mi coach bu Real Madrid ñu gën koo xamee ci Zidane moom nag bàyyi na liggéeyam. ñiy saytu wàllum wérgu yaram wala ñii saytu mbirum wérgu yaram foofu ca Democratic Republic of Congo ba léegi ñu ngi continuer di xeex li nga xam ne mooy jàngoro Ebola loolu moo di woon uh, suñu ponk yu fi gën a fés dinañ ànd ak yaatal man la Awa Gaye ci yaatal yi ni ki altine bii di ñëw la paas di yokku fii ci biir réew mi lii nag ñu ko feeñal di nguur bu Gambia looloo waral ñi nga xam ne ñoom ñooy jël seen xaalis di fay paas wax nañ ne nguur gi waroon naa xaar ba weeri bi jeex su ko defee ñu doog a yokk li nga xam ne mooy paas looloo waral taskati xibaar bi nekk fii ci biir kër gi di Liwanin Manga demoon na ci garage Bakaw bi nekk Serekunda mu am waxtaan waxtaan bi mu def ak nit ñi. ñu ngi fii ci Manjai garage ngir mën a waxtaan ak drivers yeeg apprentices yeeg ak passengers yi. ci yokkute paas bi nga xamante ne moo nar a am. am ma ne li ma sew ma ne ñu jéggaloon ñu ba weeri koor bi paase bon parce que da nga dee gis yeneen place yi da ngaa paas ñetti paas ñu ngi nii dañ desoon na weeri bi te ñu ngi yokk a njaay xam nga soo ñëwee dugg amuloo paas doo mun a dem loolu de laa si doon wax man na ñun yëpp joomi réew mi lañ du noonu loolu de laa doon ñaan man dimbal xaw ma nag. ah gisuma ci problème de parce que ñun ñëpp faaw ñu jàppalante. bu ñu gisee ni tam dalasi boobu ñu ci teg mënut a ñàkk faw ñu teg ko ci ci suma gis-gis daal gisuma ci problème ndax euh, faw ñu dem te itam ñi def transport mënuñu li ñoo li yóbbu moto yi xaalis lay jar kon da gis ne lu munul nekk lu munul ñàkk moom dafay am ci suma gis-gis <laughs> waaw dëgg la foel bi moomuñu ko dañ koo jënd bitim réew xam nga ñun amuñu diw dañ koo jënd bitim réew te duñ ko yenu dañ koo def ci gaal yi indi ko ba fii soo kon bu ñëwee euh, li mu koos rek loolu la ñu mën a séddoo ñun ñëpp mu nekk ci ñiy dem ak ñiy ñëw ak ñi ko jënd loolu rek ci sama gis-gis daal gisuma ci problème. a ah, baax na dee daal baax na si ñun xaw ma si client yi waaye xam nga rek client yi ak driver kay moom ku nekk du am lu waaw. ma ñun na arrangé ñu eh, arrangé daal loolu moo fa nekkoon xam naa jafe-jafe suy am ay two days three days daal su ñëpp eh, d'accord kay moom dina dem incha allah fekk jafe-jafe amul pepa bi amee naa ko maa ngi ko amee lu tax ma def ko fi ngir xëccoo ak client be ay seytaane dugg suñu diggante quoi because jàmma jàmma kay moom nit kay moom jama jàmma moo war àndaal nit nit yi daal waaye part bi delloo bi yokkoon ko moo gënoon delloo bi parce que delloo bi fu nekkoon lañ ko delloo rek xam na kon yokkuñ ko dañ ko wàññi woon léegi dañ ko delloo fa nekkoon léegi léegi noonu a baax ci driver moo ñu yokk paas bi parce que fuel bi dafa seer dañ dee yokk to fuel four times te sa duñ yokk paas yi problème bi trafic bi loolu mooy loolu te loolu dafa métti hmm? léegi loolu mooy problème mu driver yi loolu mooy seen problème léegi suñu amee kayit yi léegi ku bëgg a werante dañ la jox kayit nga xool parce que kayit kayit bi mooy témoin bi am na ñoo xam ne dañ dee déglu télé am na ñoo xam ne duñ dee dañ dee déglu radio waaye xam nga ñëpp mënuñoo dégg am na ñuy dégg am na ñu du dégg am nga public bu ma mel noonu am na ñoo xam ne bu ñu waxee one week bu ñu nee di di annonce sax su ma am na ñoo xam ne duñ ko dégg léegi nag moo tax bu ñu indilee kayit soo bëggee indi coow rek ñu indilee kayit ba nga xool loolu moo tax ministre bi loolu loolu la wax. waxtaan nañ ak ay passenger ñeneen ñi ànd nañ ci paas bi ñu yokka ñeneen ñi nag ànduñu ci driver yi ñoom li leen gënal mooy ñi gën a yokka paas bi ndaxte njëgu fuel bi doon na lu seer mën na leewani manga Paradise TV News. honorable Sidia Jatta bokk ci pencam ndawal réew mi wax na ne fu mu nekk nii jot na pour ñu jàngal xale yi suñ làkkay si seen jàngukaay yi looloo waral suñ journaliste yi nekk fii ci biir kër gi ñu doon am waxtaan ak nit ñi pour laaj leen li nga xam ne loolu la kii di honorable Sidia jaata wax ñu ànd ak boobule xibaar. kii nga xam ne politicien bu mag la si biir réew mi fii ñu gën koo xamee si Sidia jaata moom nag si interview bu mu am bu yaagul nii wax na ne nasaraan bi nga xam ne ñu ngi koo jàngalee xale yi si school yi war nañ koo wecci def ko làkka yi nga xam ne ñu ngi ko am fii si biir dëkk bi maanaam olof euh, soose ak yeneen làkka yi nga xam ne ñu ngi ko am si biir réew mi moom nag wax na ne nasaraan bi amul dara li nga xam ne mu ngi koo def ak nit yi nga xam ne fii la dëkk ak loo xam ne si suñ cosaan la bokka gannaaw loolu nag Paradise TV News def na ay jéego pour wax ak ñi nga xam ne ñoo dëkk si biir réew mi. waaw waaw loolu baax na ndax ku si nekk sab làkk waruloo ko bàyyi ndax bu la ndax dangaa dem ba mu yàgg nga jàllale ko ci anglais bi rek si ngaa ne waaye ku ci nekk boo amee sa làkk bi sa làkk bi la ñu waxal la ko si olof su fekkee pël ñu waxal la ko si nga làkk ko si su fekkee séeréer nga wax ko si séeréer nga làkk ko si su ko dee benn boo lëggee benn du réer waaye bu ñu jàppee rek euh, nasaraan bi rek euh, tubaab beneen làkk yi dina fu mu toll nii waxtaan bi dina nekk loo xam ne Paradise TV News lu muy toppala ndik affaire yi làkk nekk na loo xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel bés bu nekk. Lamine Fall Paradise TV News. Kapaosib ñoom ñoo mayee lu tolloog ñaari téeméeri saaku maalo ak téeméeri saaku sukur ngir jàppale julit yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi fii di or liñ leen may boo ko xaymaa ci xaalis mu ngi tolloog ñetti téeméeri junne ak lu teg ki nga xam ne moom mooy project manager bu Kapaosib ñu geen koo xamee ci Yankuba Mambure mu ngi doon am waxtaan ak Paradise TV. waaye fu mu nekk nii li ñoo def li ñoo joxe nii mooy ah, ndogu sukur ah, Ramadan xam nga ne ah, nit ñi dañ dee dañ dee or te suñ oree dañ dañ war a dog seen or pour ñu am stable mind loolu lañ bugga so fu mu nekk nii suñ profet bi lu mu wax ni mooy dafa baax pour ñu luñ am ñu seedoo ak nit ñi soo si loolu lañ nekk nii ñu nekk di seedoo ak ak nit ñi Gambien si. si because you know this is unexpected so si bij bi la ñu fekkoon so gars yi doon wóor so ñu laajte ñu you know about di power system bi so ñu encourage leen si affaire yi power system bi because ñun yàgg nañ fi tamit si dëkk bi dañ lay gis problème bi so you know ñoom su ñëwee tamit ñu am jasto bi nii pour defal ko you know ñi tamit non loolu noonu kontaan nañ si torop waaye loolu moo di woon xibaari biir réew mi ñu ànd ak yebaane buñ dellu see ñu ànd ak xibaar yu njëlee bitim réew Why do we say the only name that matters in real Well, let's see. For over a decade, we have changed the approach to property ownership. Not only do we provide you with the most ideal and prime properties in the Gambia, Senegal, and now Ghana, but guide you in the process, making sure that your property decisions matter, showing you where your investment will yield the best in any development project we offer. Property values continue to rise every Global Properties remains by your side to guide you with property solutions that fit and cater to your lifestyle. Global Properties remains the elite and most consistent, making it the only name that matters in real estate. Call us today at 439 1944 or 439 9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com gambia.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. loolu moo di woon uh, yébaane yi ñu ànd ak xibaar yi tàggat yaram kii di Zinedine Zidane nekkoon coach bu Real Madrid moom nag ni ki tey ji si suba la wax ne dina bàyyi liggéeyam ngir dafa gëm ne fu mu nekk nii waxtu dafa jot pour soppeeku tey tamit team bi nga xam ne mooy Real Madrid dañ soxla keneen koo xam ne dina mun a toog nekk foofule coach ñu ànd ak xibaar boobu. loolu moo di woon uh, yébaane di saytu wàllu wér-gu-yaram foofu ci Democratic Republic of Congo ñoom nag wax nañ ne ba léegi ñu ngi xeex jàngoro ji nga xam ne mooy uh, Ebola ganaaw bi nga xam ne ci weer bële ñu génn amoon nañ ko foofule ci Democratic Republic of Congo uh, xibaar bi nu mu ko jot a feeñalee rek mooy fi mu nekk nii lu tollook ñaar fukk ak juróomi nit ñoom ñoo jot a gaañu ci feebar bi nga xam ne wala di jàngoro ji nga xam ne mooy Ebola Pa Kaba suuso moom moo ñu indil bi xibaar. ci yeneen xibaar yu njëlee bitim réew. bu jàngoro bi jógee sa Democratic Republic of Congo di DRC atum 2018 juróom-ñetti fan si weeru mai lu waree ya moo ko juróom fukki nit ak ñeent ñoom lañ gis ne mandarga feebar bi mu ngi ci ñoom ñeneen ñi commencé di ñax ñi commencé di tàngaay ñu nekk si ay jafe-jafe te bokk na si lu waree ya mook ko fanweer ak juróomi Ebola cases si nga xamante ne diggal nañ ko. ñaar fukk ak juróom ñoo fa faatu te fukk ak ñaar si yooyu la seen li leen rey Ebola la lii moo yee nag ñi nga xamante ne ni ñooy liggéey si wàllum wér yaram si tund woowule pour nag ñu commencé pour saafaral daal jàngoro bi jàngoro bi nag loraangeem dem na si dikk bu ñu gën a ràññee si Mbandànk ak yeneen béréb yi nga xamante ne ni daal indil na fa ay jafe-jafe bi moo nekk nag juróom-ñeenteeli yoon jàngoro bi mu ngi jóg sa diyaar Congo ñeent fukki at ci gannaaw te fu mu nekk nii nag li ëpp doole si jàngoro bi jógam ci gannaaw daf day tàmbalee si dëkk yi nga xamante ne dañu wéet nit ñi bariwuñ fa te mu commencé nag di law tuuti mu jëntali nag jógi jàngoro bi sa diyaar Congo ñu ne mu ngi xewoon ci tunda buñ gën a ràññee ci Likati weeru mi atum 2017 lu waree moog juróom nit ñoom la fa indil ay jafe-jafe nit faatu fa si tund wu gën a si bu yende 2014 mu di maanaam atum 2014 lu war a yemook juróom-benn fukki nit ak juróom-benn si biir yooyu le ñeenti fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk fa seen bakken jàngoro bii nag di Ebola yeneen jógab yum day jog sa DRC ak bii ñu ne nag daf dee jógee si bi bidika yi nga xamante ne daal dañ nekkee seen dañ xaw a wéet wax nañ ne ñi feebar dañ leen dee day ak diagnose maanaam ñu faj leen samba ndànk dëkk bi nga xamante ne nii sax ñu ne lu war a yemoo ay benn million nit ñoo fa dëkk wàllum nag dem ak di ko yomb na lool te loolu tamit yo dee mun a yombal jàngoro bi mu muy law di sori te loolu sabab na sax ñu jël ay matuwaay pour gis ne ñu saafaral saafaral mbir ma pour gis ne jàngoro bi bu mu continuer di law loolu mu ngi yewoon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru mi atum 2018 te wax nañu lu war a yemook ñeenti laab ñu dëggat mu ni maanaam ñu feebar foofu la si mbandang waaye fu mu nekk nii am na solo lool pour diggal dëgëral tamit ne nag jàngoro bii nii léegi nekkatut di law si biir dëkk woogule gannaaw yi nga xamante ne ni matuwaay mat sëkk lañ jël pour nag càmbarko waaye tamit pour nag gestu mbir mi pour gis ne feebar bu mu law waaye tamit bu mu jéegi dayoo si ay semaine si gannaaw mbootaay wi nga xamante ne ni ñu ngi ñu ngi yëngu si wàllu wér-gu-yaram ñu doon liggéey ak congolais si seen ministre bu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ak yeneen i kuréel yi nga xamante ni tamit ñëw nañu foofule pour dimbale nit ñi waaye tam pour saafaral bii bile di Ebola bile. jéego yi nag ñëw na gannaaw yi nga xamante ne ni sax Ebola bi jël na ci ay matuwaay pour gis na bu mu law te nag jéego yi de su fekkee ne continué na jàngoro bi nag lawam pour saafaral ko. du nekk li nga xamante ne nii dina yàgg kilifa yi nga xamante ne tam ñuy liggéey si bunti faj bi ñu ngi waxtaan di jàngal ñi nga xamante ni ñoo dëkk si dëkk bu lañ leen leen nekk di jàngal ñu ngi leen a jàngal yan màndarga lañ mun a gis ràññee ko si ko am jàngoro bii di Ebola waaye tamit naka lañ mun a muccalee seen si jàngoro bii nii. loolu moo di woon xibaar yi ñu leen jot amal fii tey ci Paradise TV man la Awa Gaye Boye dinañ dellusiwaat suba incha allah ak yeneen xibaar.